am na solo Balla léegi ma dugg ma ma jeexal ak yow ci ci ci ci làmb danga nga yor benn xale muy Franc mu bëre bu yàggul daan ki nga xam ne moom mooy euh, Tyson 2 Gris 2 bëree daan may for ci boobu bay xam nga damay wër ci ga damay dem ci marché yi ci garan place yi nangam sangam gaa yi naan Franc ak kii Franc ak Franc dëkk na fi jases de non dëkk na fi Eumeu Sène dëkk na fi ay mbër dëkk fi ay mbër yaa ngi dégg ñu ne naan mook saa Thiès am ñu ne ma mook Gris 2 Franc wala Franc Sa Thiès wala Franc keneen loo gis surtout moog Gris 2. waaw am nga ñoom ñëpp ñoo bokk benn génération. Mhm. donc te làmb moom euh, du biir. day xëy wasin day xëy rek wasin. Mhm. te Franc mi ngi fi nekk xale. Gris 2 mhm. xale la. Sa Thiès xale la ñoom ñëpp xale lañ. te defe naa ne ñoom ñëpp làmb dina leen boole seen biir. du dëgg tey ku mu ci mën a am rek comme adversaire rek. Mhm. defe naa ni combat la adversaire la. Mhm. liñ ciy war rek mooy liggéey pour ñaan yàlla am ca ndam pour gën a mën a avancer. coowal Franc tamit parce que seen écrit la ne fa lay entraîner du mhm. waaye administrativement mu ngi fële parcelle mbooloo. foofu tamit am na tiraillement bu metti bu fa am ba ay sortie di am jàppal bàyyi loolu yéen ñi ko yor. nu ngeen ko gisee bon loolu moom vraiment du ma ci mën a wax lu sori. parce que ñun dañoo yor structure boo xam ne on est que ñun Euh, xëccoowuñu dara. Mm-hmm. ñun defar moo ñu tax a jóg. Mm-hmm. tey bu ñu sañoon suñ parcelle ñëpp booloo nekk benn. Mm-hmm. bu ñu señoon tey parcelle écurie yëpp fusionné ñu def ko benn écurie. bu ñu señoon tey ñëpp ànd dirigeant yëpp ànd. du dëgg. am na wax yoo xam ne nag waxu waxu mer la. wala waxu soxor la wala waxu iñaan man du ma ci tontu. xam nga lu tax ñun li ñu war mooy dañu yor ay xale. war leen accompagner war leen encadrer ñu def ay carrière li nga def nag li nga xam ne moom mooy ay détails moom la seq waa euh, parcelle mbooloo mhm. at waa jàmbaar Wrestling Academy je pense que am nañ euh, bureau technique boo xam ne tey euh, tey dirigeant yi secrétaire général yeeg yooyu noonu ñi nga xam ne ñoo géré côté administratif mhm. ñu ngi ciy dox la ca des nag mooy ñun côté sportif bi ñu géré mhm. ñu ngi koy géré ñu ngi géré xale yi ñi ngi entraîné et puis ñu ngi xool naka lañ leen di encadré ba nga xam ne dañ mën a def carrière professionnelle carrière bu gën a mën a baax ci bi ñu nekkoon. mais moom it xale bu mel ni moom làmb yaakaar ko tey est-ce tey li ñu koy toppee wala li nga xam ne moo gënil problème moo indi problème bi est-ce que bu deful li ñu wax problème moo ci amul. Ah, problème amul ci tey yow sa waaye bu ma la yoree te doom maanaam bu joxewul li ñu koy laaj. ñoom ci li ma gis ay hmm. xaalis mooy dox diggante bi wala mu toog atul la mu dul bëree. Hmm. loolu kay problème la ah, nekk xam nga nit. waaw ah. adduna euh, méttiwul boo nekkee ci adduna. Hmm. nekk ak nit. nit kooku dem ba bëggatul nekk ak yow bëgg a nekk feneen. Hmm. yombalal ko mbir yi rek mu dem. mais boo ci nekkee di ci téye naan daf ma war a jox lii wala dafa da war a def lii wala li dafa wor wala di yàq deram dafa rafetul nit doo ànd ak moom ay at ba pare toog di wax ci moom lu ñaaw wala di yàq deram pour nit ñi pour nit ñi mere ko wala pour nit ñi franc ku ko xam-xam ne nit ku yaru la nit ku amul benn problème la léegi nag la ca des man sama yoon nekku ci. xam nga man ban côté laa géré. Mhm. côté sportif muy côté bi nga xam ne tey sama mbër dafa war a nekk ci forme sama mbër dafa war a nekk ci dans les bonnes conditions la ci des muy côté administratif nañ bàyyi ñi nga xam ne ñoo géré bureau bi. mais est mbër war naa tamit ne ci rek ba mun a xëy rek génn damay génn ñu bàyyi ko mu dem noonu. mais loolu texte yooyu defe naa amatul loolu dafa jeex. mais sa waay làmb ay làmb. waaw ah. ah. ah. mbër buy dem ci écurie. Hmm. tegaluñ ko benn condition. buy dugg si booy dugg ba mës nga gis mbër buy ñëw ci écrit ñu tegal ko ay condition ne ko booy boo fi ñëwee nii lay demee nii lay demee nii lay ah, demee. yéen seen écrit ba amul condition bu ngeen teg kon. non mais déglu ma rek dama lay laaj. dama la laaj bul wax suñu écrit dama la ne làmb d'une manière générale. dama ne la. est-ce que mbër mi ba muy ñëw ci écrit boobu noonu muy parcelle mbooloo. wax tegal nañ ko ay condition bu yu muy nekkee ci écurie bi. waaw non loolu moom mënu ma koo xam. voilà est-ce que léegi nag mbër moo ko nga xam ne yow ba ngay ñëw tegaluñ la benn condition nga bëgg dem ah ci njëkk ak teraanga ñu tegal la ay conditions. mais loolu du kayit bu ñu bind léegi CNG du moom moo dogaloon loolu xaw ma. ci mbir su waree loolu ba léegi leerul parce que CNG ci boppam boo leen ñoom seen wàll bopp maîtriser wuñu ko du dëgg ñoom seen texte texte boobu. waaw yow laa bëgg en tant que journaliste. ma gëstu nga gëstu texte bi. Mhm. liir ko ñëw xamal ñu ko parce que texte boobu waa CNG ci boppam maîtriser wuñu ko. Mhm. du dëgg leerul. du texte boo xam dafa leer te texte bu génnee je pense que dañu war a woo président écrou yëpp du dëgg convoqué président écrou yëpp at seen mbër yu mag yi ñu toog ñu liiral leen texte bi wax leen lan moo ci nekk at li nga xam ne tey moom leen ci moo leen ci war at waru leen ci mais taxe yoo xam ne doo ko gis da ngay jékki-jékki rek man à ma grande surprise lu ma nanguwul da ngay ne ni rek ñun la CNG CNG moo ne ni CNG moo ne CNG non mais ne CNG génn di leeral ay texte am na CNG génn di communiquer ak président écurie yi def benn commission boo xam ne tous les trois mois wala six mois mu mu convoqué président écurie yi jox leen li bees ci làmb informer leen mais làmb dafa war am nu mu doxee. am na solo mais oui. am na ko bokk ci làmb maa ngi ko gis ci 2STV muy mbay ak Loum ku ne xam na ne ku mën a way la waa làmb yëpp di ko sagoo. Mhm. di ko sollicité mel nii dafa am benn maladie bu mu ne bu ko dab depuis ba ba tey tànkam gis nañ mu génn. vraiment ah, mu mel ni ki daal bëgg na waa làmb taxawu ko bëgg na waa askanu làmb taxawa ko loolu loo ci wax parce que affaire bi gis naa tànk bi vraiment metti na trop téewoon na ko fi benn temps mais terewu ko da daan force di ba tey nii affaire baa ngi gën a exagéré. tey boo bëggee dëgg dëgg appel ngay lancé ci loolu. appel bi may lancé mooy mhm. CNG laa koy lancé ak ministre des sports. Mhm. ñoom dañoo war a jàppale Mbayang Loum. Mhm. CNG. drapeau chef de l' waaw tournoi sa sa yëpp dañ ko doon invité mu nekk ci naaj bi ñu koy gis mhm. ñu koy jël muy bàyyi léppam mhm. ah, drapeau chef de l'État da ko daa woy ba mu jeex mhm. tournoi CEDEAO da ko daa woy ba mu jeex du dëgg ministre Matar Ba mii tey mbéyeg lu amul foo dem te déggoo woyul Matar Ba tey en tant que ministre des sports moom la ñuy sollicité tey bu ñu nee mondu làmb tu ñuy mondu làmb suñu kilifa Matar Ba la Mm-hmm. suñu kilifa tey CNG la tey na CNG mm-hmm. ak ministre des sports mm-hmm. jóg taxawu mbayam lung bu ko defee ñaar ñooñu bu ko taxawee monde làmb yëpp dinañ ko taxaw dinañ ko taxaw kontaan ci yow Balla jërëjëf sa euh, kon gars yi noonu la demee woon ah. tey Balla Diouf la ñu amuloon waxtaan dégg ngeen li mu wax ci côté làmb ji ak ni nga xam ne noonu lañ leen di traité te li mu wax wax dëgg yàlla ku yorom xel di déglu war nga koo mën a nangu parce que tamit munoo bokk ci réew ba pare ñu ne lii sport national la ba pare ah maanaam as maanaam lépp luy sport ci réew mi bu subvention jotee ñu jox leen ko te lamb moom du ko am parce que promoteurs yi ñu leen di jàppee comme ay privé te li mu wax dëgg la promoteurs yi pourquoi privé ay doomu Sénégal lañ dañ jëmmal sport national kon loolu Balla wax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nit ki nag suy wax da nga koy dégloo am xel boo bëggee jariñoo la muy wax bañ ko dégloo sa xol ndax boo ko dégloo sa xol mën nga ko bañ a jariñoo loolu mooy li ci am beneen kaa bi mu wax tamit muy le cas de Mbayang Loum defe naa ne loolu leer nañ nañ Mbayang Loum defe naa ne bu ko ministre de sports taxawoo waa CNC taxawu ko mooy waa làmb taxaw nañ taxaw nañ ko te il est que ñu def lool ndax génn na wax te Mbayang xam naa ko nitu la vraiment ku am jom la te itam ku yokk làmb la làmb boo fi dëgg tey moo xam bu mu ci mën a doon te mbayang wayu ko gaaya lañ ci bëgg duñ ko am presque parce que tamit loolu la yàlla dogal ci moom kon bu demee ba mu demee nii na ko ñëpp jàppale mais nag li la waxaat nu laay waxaat rek ministre de sport lañ ciy woo ak waa CNC waaye tamit di ci woo te bu ñooñu ñëwee rek làmb yëpp ñëw nañ mbayang di ko nuyu di ko ziar moom suñu jigéen la suñu xarit la yàlla na yàlla wéral cër yi barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam defal ko bépp doomu aadama di kontaan bu baax a baax a baax baax ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel di commenter di aimer loolu am na solo ba beneen yoon gars yi